léegi da nga daan toog fii xamoo sax luy xew Mauritanie wala Thiès gi la pour nga daan fa dem rek mais da ngay toog fii di xam jokkoo kan nekk Amérique di ko gisante moom nii yëf bu demee day dem ba kumpa amatoo sa xale yi ko su kumpa amul nag maintenant pour nga yaraat xale bi il faut am beneen taxawaay dëgg la dëgg la taxawaay dëgg la dëgg la léegi li bi kër yi xatee frontières yi ubbeeku fépp ubbeeku tubaarkàlla man maa ngi fàttali bi ñu nekkee xaleel fii Pikine macha allah kër yëpp xamante xale yi ñëpp ñoo daan ànd di foo mhm. ñëpp ku nekk boo gisul doom sa doom rek ma nga kër diw ana diw mu nga kër diw ku nekk xam na fu doomam ne ku ne xam nga foo koy seeti mhm. mais tey tubaarkàlla comme ni nga ko waxee rek ni kër yi xatee mhm. frontières yi ubbeeku réseaux sociaux yi ñëw tey fi tey yar jafe na yar jafe na jafe na jafe na jafe na waaye am na kër yi nga xamante ni ba tey ñu ngi ciy lu àq même bu mel na démb ñu ngi was waslu àq di jéem a góorgóorlu ba mën a téye tuuti ci li fi maam mm-hmm. bàyyi. am na ci ay kër yoo xam ne ba tey tubaab fakkaala boo fa duggee rek nga xam ne ñu ngi téye li fi maam bàyyi mais yar sa doom ci jamono ji mm-hmm. jafe na lool lool lool ndax ubbeeku bi macha allah ubbeeku bi yar jafe na fi mm-hmm. jafe na fi torop torop torop jafe na fi torop tey fi tey ñeme woo romb sa doomu nawle nga gis mu def lu jaaduwul nga dóor ko sañoo ko. Mm-hmm. mbaa nga wax ko sañoo ko. balaat waajur wa di wax sax doom jee doom jee lay jëkk manqué de respect. doom jee lay jëkk manqué de respect donc sañatoo romb kenn tey benn xale tey muy def lu mu waru def ba nga corriger ko wala nga wax. yooyu dañ na amatu fi xel sax xalaatu ko. tubaar fakal kàll du ñu xaar sax ñu corriger leen ndax léegi xale yi tubaar kàll la da nga naan may kanam mangoog jeex na dan la doon may ah. kanam sax donc mu ngi eh, dem mu daal defar kanam gi daal di ko conseillé ak ca ca kaw <laughs> wallaay dëgg la <laughs> maa mu fi teg la loxo ni la mère doxal sa dox loolu lan lay tegal donc yaru démb dafa mel mu ngi disparaître <laughs> naam am na lu ci des tuuti waaye dafa ah. mel mu ngi disparaître dañoo war a nag fexe nag jéem seet lañ koy téyee nan lañ koy tey dina jafe nag lool ndax ubbiir ko bi tey dina jafe lool mais vraiment loolu moom ah, def na. dafa am lu ñu naqaree ma dem xam nga dafa am loo xam ne dafa ñëw rax ñu.